asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen ziar di amaan mbégte dellu si waat ak yéen seen émission Folie Time muy émission bi nga xam ne moo leen di bégal saa su ne muy am fii nga xam ne moo di kër bi kër Ndanane TV la chaîne de l'élégance yan anteeg seen doomu ndey Doudou Ndiaye lan 213 ka muy émission bi nga xam ne day indi stress génne naqar yooyu yëpp noonu naa leen nag bu ngeen dugg ci marché yi bu ngeen dugg jox jaaykatu géej gi jaaykatu yéet yi jaaykatu gerte caaf yi tey nag ci mairie marché yi laa dugg xool leen nag ñoom seen liggéey nan lay demee nag nan lay doxee kon sama camara wuumaan tey sama camara wuumaan laa àndal topp suma ñu dem kon. DG dina dugg ci marché yi dina xool jaaykati kaani yi jaaykati laaj yeeg jaaykati xorom yi tey nit ñi fi ci marché bi seet si waat nag sunu maire yi nga xam ne ñoom ay jàmbaar lañu damuy xëy fajar teel di daan seen doole pour lu mu yóbbul njaboot ga tey ñun waaw ñëw fii nag seet si leen. bëgg a am ak ñoom waxtaan laaj leen ñoom seen wàllu liggéey lu mu demee salaamaaleykum yaay booy. maaleykum salaam sëñ bi. ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi lay tur bi naka la. Jaxeer Siis. Jaxeer Siis. waaw yow jaay. man tamaate laa jaay. haricot supame jokkute. waaw baax na li daal légume daal lu ma am rek indi waaw. Ah, waaw daal. mais liggéey bi mbaa yaa ngi gis sa bopp. Ah, moom doy na waar daal. ndax dëkk bi métti na métti goo xamante ne nii ku daan jënd kilo léegi genn waa libar ngay jënd léegi mutuwaay dëkk bi da ngay indi bagage war kaa jaay ñibbi jaay ko une semaine des fois ay problème yu boor sa dara siy fekk yoo man a fay borom yaa ngi dégg da ngay obligé am ak borom tool yi problème rek bagage boo ko jaay doo mën a fay borom yaa ngi dégg ñuy dunda coono bu métti quatre heures du matin la ñuy yeewu di daw di ut lu ñuy jox sañu njaboot di ut lu ñuy jox sañuy doom di ut lu ñuy jox borom tool yi am sañu yaakaar mais dëkk bi daal instant métti na métti goo xamante ne ñun jigéen ñi sonn nañ lool gisuñu sañu bopp daal metti na ba fu métti yem daal waaw. mais client yi moom ndànk-ndànk rek ndànk-ndànk rek waaw ndànk rek moom waaw njaay moom bu njëkkoon ak léegi moom wuute na lool waaw wuute na lool ndax xale yu góor yi amuñu liggéey marché bi gis nga xale yu góor niñ toogee nii bu fekkoon ñëw am nañ ci luñ jàpp jigéen mën a foraatu as néew mais da ngay gis jigéen day la góor ñëw lal si kanamam mënoo kaa yékki ndax moom tamit di nga wut lu mu yëpp yaayam wala yu mu yëpp papaam wala jabaram waaw yaa ngi dégg fii Sénégal métti na métti goo xamante na dëkk bi moom métti waayam kenn moom moom ko métti na trop trop mais comme yéen ni ngeen di xëy fajar doon ay jàmbaar di liggéey pour yóbbul am lu ngeen yóbbul seen njaboot ga te dëkk bi bari na ay kii maanaam yéen seen jafe-jafe dëgg dëgg lan la doon fii mu ne dañuy jafe-jafe daal lii gën a métti mooy ñun amuñu sa place bu ñuy liggéey si place yi jàmbur la ñuy toog bu seen borom xëy see 9h 10 nga ngay jóg jël bagage xam nga loolu du liggéey war nañoo mën a am foo xam ne dañuy xëy toog ba wàcc jot ñu dem ñibbi bu bagage bi jeexee nga xam ne jeex na bu jeexul nga tëjee nga sa bagage ba suba loo am nga yeggali mais ñun daal loolu mooy sañu jafe-jafe yaa ngi dégg ak bu métti bi daal agression bi yëpp a ngi si biir da yow léegi booy jóg 4 heures du ragal da ngay obligé ngay doog a mën a génn léegi dëkk bu danger bu doy waar daal metti na daal ba foo ko natt weesu na foofu. waaw kon noonu la deme kon message bi dama li ki ma koy jox mooy monsieur le maire mu seet mu gëstu sunu yaay boo yi nga xam ne dañuy daan daan seen doole te mu aussi it mu yokkaat sécurité bi parce que yombul ñoom bu ñu toogee ba mu naaj li ñu bëgg am duñ ko mën a am fajar la ñuy mën a jóg dem mën mën koo wuti indi pour mën a liggéey. kon nañ leen war a geesu war nañ leen a mën a taxaw baax a baax yaay booy ñoo ngi bu baax. waaw ah, maa ngi leen di jaajëfal bu baax yéen tamit kontaan nañ jaajëf sama yaay jëm. waaw ah sama yaay moom. seetlu woon. yaay booy. waaw waaw comme déglu nañ sunu yaay ji moom tamit wax na yow tamit ci légumes yi ngay ngay yëngatu. di jaay waaw maanaam jafe-jafe yi ak liggéey bi nu mu demee nii. liggéey bi nu mu demee. waaw liggéey bi def taay yi moom daa sant Diallo. Mm. taay yi moom liggéey bi moom dogul. ñu ngi ni boo indee bagage da ngay toog ñetti fan ñeenti fan nga soog a jaay maa ngi nii di ci yëngu gis li may yëngu ne marché Douagne baa ngi nii moom laa yëngu moom moo lii moom moo tane waaw moom daal la ñuy yëngu waaye moom bu ñu sanoon ñu am léegi ñu am koo xam ne dañuy finance ay millions yi ñu mën a dugg ci bagage yi dem ay noo toog kër Abdou Ndoye toolu mango yaa ngi ñor ñu mën a dugg ci biir ñuy jaay di verser. waa Pamika loolu lañ bëgg a saa yi moom. yow fi mu ne waa Pamika man daal ñoom laa bëgg a financé ñu. buñu financé ay millions nga soxla. ay millions laa soxla. bu ko defee buñu financé millions. man beneen yeneen bii dem paas mu dem Italie wala Amérique mu génn fi mu jóge fii Sénégal moom dara nekkut. <laughs> Oh, man a man. ma amee million yi. damay génn fii. kon waaye day génn ah, waaw. million. waaw kay buñ ma jógee ah, man ma dem liggéey dem Amady boo paree di leen envoyé seen xaalis. Ah. jeex na loolu laa bëgg. alors merci beaucoup. merci waay jërëjëf yal yàlla jàppale. jaaraama. voilà sama gars yi émission Full Time bi nii lay continuer ñoo ngi nuyu ba léegi nag seeti waat sanu sunu tey moom jaamu séeréer ñu laaf laa bett muy ndékki lekk na ndékki gi nag bàyyi ba. <laughs> yaay booy ñoo ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay siyaare bu baax sant yàlla. lépp lu ngeen dox yal na leen yàlla defal jàmm defal leen xéewal si barke sëñ Fallou. naka liggéey bi. liggéey bi nu ngir sant yàlla rek. waaw. xaal mu ngi dox ndànk-ndànk rek xaalis amul waaye nu ngi doolee sant yàlla bu baax. waaw xaalis moom amul moom liggéey bi moom maanaam ndànk-ndànk rek waaye taxul mu dox noonu. man persil yi nga ma fekk laay jaay persil. persil chinois oignon ak céleri ak oignon. persil séeréer persil séeréer kay man duma ko jaay ndax séeréer moom. <laughs> boo doon jaay persil séeréer rek. waaw persil persil persil tukkulóor jaay. bu bi laay jaay. mu ngi jar ndànk rek bu tayee mu baax léeg-léeg xam nga njaay moom bu tayee mu mu baax bu teyee daal moom nii nu ngi doon lay yàlla rek waaw ndax njaay noon la bu teyee mu neex bu ëllëgee séentu na day day naqare moom moom njaay ñoo ànd waaw moom njaay ñoo ànd. sa si liggéey bi lan mooy si samay jafe-jafe. Ah, liggéey bi waaw wax dëgg yàlla ah waaw dañuy teel a jóg ay quatre heures jóg waaw ay quatre heures jóg dugg si marché bi di ut bagage bu ñu utee bagage toog njaay sunu njaay waaw wax dëgg yàlla nu ngi sant yàlla bu baax. yow yow moom amoo ci benn amoo benn liggéey bi. si liggéey bi ah, am naa ay jafe-jafe tuuti de waaye xam nga xaalis bi moo demewut noonu li affaire liggéeyukaay daal da ngay dem ba du mën a am ay bagage loo utee ji bagage loolu moo tax waaw xaalis. waaw jaamu séeréer bi moom mu ne waaw ah. ba pare ah léegi place bi place jaayukaay daal bokk na si. bu ma mën a jaay daal na si. su ma mën a toog jaay. bu ngeen am waaw bu ma mën waaw. waaw ndax léeg-léeg xale yu góor yi nga xam ne ñoom ñoo yore seen taabal yi di jaay ay yére ñu ngi nii ci la ñuy kii bu ñu ñëwee. nu jóg wax dëgg yàlla ñoom dañoo baax ñoo nuy may nuy tege ni ci seen wet waaw maa ngi koy sant yàlla bu baax ma ne ko waaw waaw jaajëf jaajëf waaw ndax sant yàlla moom moo war a jaamam sax ndax bu la yàlla mayee fan gudd wér goo mën a deme nga xëy ba dem rek day na sant yàlla am na ñu ko bëgg te amuñu ko kon nag sant yàlla bu baax waaw looy wax fi mu ne nii ngi noonu ak sàcc xale yi ah moom daal moom rey daal sàcc xale yi daal moom fi nekk nii wax dëgg yàlla moom kum di mën a dimbaleet mu jël ndax politique jërul jël sa ay xale yi jàmbur di leen def yenn yi baaxul waaw wax dëgg yàlla. jërëjëfati yaay booy. ñoo ngi lay ziar nit dama mën la waaye wax nga lépp. li nga nekkee bari xam naa la <laughs> jaajëfati. ma leen doole san yàlla bu baax. Kumba Limoom Kumba Limoom Kumba Papaye Kumba Jakote <laughs> maa nii jeex na Kumba Limoom Papaye Kumba Manga ah, waaw waaw waaw jërëjëf vingt mille francs quarante mille francs moo doon question bi yëpp la nii bu la neexee moo ci trente téléphone lépp ci biir bantu la lépp ci bu la neexee boo ngooy rek wàcc tëj daawoo fat da nga leen fat di fay mais léegi fii ngay wàcc tëj sa place de mujj kon nag noor bi moo moo. Assane Kassé waaw moo ñu defar lii Assane Kassé waaw. waaw moo ñu defar xéwal bi wax dëgg yàlla di ko sant di ko gërëm nga xam ne moom bu soxlaa boo amaatee man tey woteel moom fa ñëwee gañe ndax lii moom la moo noonu dàq muy génn dama ko ñëw mais lépp moom la kon dañ koy sant di ko ñaanal mu yàgg loolu te wér fa encore man délégué na marché bi waaw parce que nee nañ ma yow yaay délégué waaw man maay délégué marché bi lii bu ñu defal moom maire yi bari jaaram fi amuñu ko fi moom te moo na ñëw dàq nu ñi dama koy ñëw ville bii dama ko jox ne lépp moom moo ko defar toog leen ngeen liggéey kon li mu am sant ko. kon meeru noor moo a neex. ci noor a gën a neex ci a moom. ah yàgg naa ci bi parce que lu mu dooree man am naa 50 kon xam nga xam naa dëkk lu bari 89 man nga ko grand yof xam naa boobu xale bu ndaw nga. su ma dee ba am lii lu dëkk kon moom laa sant sant baax a baax a baax waaw dañuy sant daal. waaw ñoo ngi koy sant bu baax fu mu mën a nekk ñoo koy ñaan. c'est bon voilà. voilà yi kon ni ngeen ko waxee émission Full Time bi noonu lay continuer tey ñoo ngi fii nag dañoo ndékki si ci meer saf loxo la ñu ñëw nag fee waaye dañ fee nag ay ndaanaan yoo xam ne nii moom. macha allah bëgg nañu seen bëgg nañu seen dëkk waaye ay ponkal la ñu sëñ bi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay. tur bi naka la. tur ñu ngi koy wax Sele. Sele. Sele Sele. Sele. Sele da nga kéegul xanaa. waaw mais waaw biir bi moo amagul dara rek. xanaa am kéegul nga. dëkk bi moo métti rek bu question sant sax. mais dëkk bi moo toll foofu daal. maanaam dëkk bi yow lan moo ci métti fi mu ah xam nga par rapport ak euh, jamono yu njëkk suñu maam yi dañu daan tooñ. ay kii diw kal yeeg affaire yooyu noonu mais léegi gisatoo fi kenn benn kal ndax ba mënuñoo lekk ba suur. non si parce que dëkk bi métti na dëgg la nag ñu ngi saay sa saay bu ñu xëyee ñu ngi sant yàlla yaa ngi dégg sant yàlla boobu nag boo gisee ñu koy def ñun ñun ñoo baaxoo noonu ñoo yaroo noonu loolu la ñu yaroo dëgg la day métti yaa ngi dégg. mais il nag gars yi mooy euh, geesu ginnaaw ci population bi jox leen seen gëdd ak seen aax seen yelleef bi ñu moom ba bu ko defee képp ku jóg génn sa bundu dem di wuti di nga am mu néew mu bari di nga am ñu ngi dégg voilà loolu loolu daal moo ci li nga xam ne tey jii nii mooy suba teel gi wàllum ndékki li waaw bu ko defee jaaykat yi gis seen bopp ñii di ndékki ndékki ba suur yow daal ah, yow yow wàllu lekk rek nga fi wax fi mu ne nii mooy sa ah, problème saako bu amul dara tamit. waaw ah. lu taxaw. mais dëkk bi fi mu ne yow nan nga ko gisee dëkk bi tàng na temps yi ñu ngi wax ay sàcc xale ñu ay ay rey am te fi mu ne nii dañoo nekk ci période campagne campagne yi commencé na. lan ngay wax waa dëkk bi fi mu nii. ñu téye seen doom rek. doom moom dafa sacré ëmb nu mu méttee yaa ngi dégg. nga bu bu juddoo ci eh, jàmm ak salaam yow li nga war a def mooy nga sànn ko téye ko xool xale bi ci lu muy dugg ak ci lu muy génn yaa ngi dégg loolu mooy yoon mais boo juree sa doom bàyyi muy dox fu ne mu dugg fa tamit waaw ah, loolu tamit. day nduroog leneen moo tax dañ koy jël day day nduroo ni ñoom soxlaaw ñu ko ñuy sàcc xale yi ñoo ko soxla. ko eh, mais de c' est ku jur sa doom nag soxla nga ko la ah, waaw mais xale. xale xam nga xale xam nga dara. mais xale tey boo toogee benn cinq minutes gisoo ko ci kër gi génnoon nga dem xool ko. jàngul même bu jàngi jee sax dama nga war a dem taxaw ci buntu école am ko ba mu génn nga jël yóbbu. waaw bu ñëwee moom mënoo dëkk ci moom toujours moom parce xale mais xale kenn du ko tëj sax xale kenn du ko tëj fa nga koy bàyyi mu libre pour muy mën a foog xam. mais tamit libre boobu nga koy bàyyee. am na benn moment boo xam ni tey yow war nga ko mën a dem vérifier ndax mu ngi lieu mu war a foowee wala mu si ay loxo yu baax yu mu war a àndal genre affaire yooyu yaa ngi dégg xale nag dafa am heure bu mu war a yem heure boo xam ne yow à tout moment war nga mën a dem xool xale bi ndax fa nga ko bàyyi woon mu fa wala nekku fa. am na solo borom xam-xamay wax borom xam-xamay wax li muy wax am na solo mais nag am na lu ma wax nee na ma marché bii ki fi dàq maye. moom nga toogal nii dan moo ko waa wax nan moo ko de léegi loolu nga bëggale la gaay gaay yi naan tàmm nga leen a buum ca booy booy ba mu gaaw. waaw mais kon bu dee ñooñu loolu la ñu wax sant yàlla rek. waaw dooleel. waaw sant yàlla rek. mais man dama remarque benn affaire. mais jaagati. waaw. jaaykat yi liggéey bi mais lan moo tax ñu dëgër bopp mais à chaque fois tey boo ñëwee di wax a ñoom hmm. dañuy jàpp ni lambale lan lambale nañ te pourtant du ñu lambale de pourtant léegi nag daa am solo la tamit mais lambale bi ñuy wax chaque jour moo ma jaaxal te saa bu ñu xëyee gën a mën a sotti waaw est ce que amul loolu amul. amul. non non. léegi duñ ah ñu xool pexe rek. waaw léegi mayal mayal bu baax. yaa ngi wax lu wër tiis nag. waaw joxeel rek. digalal xa gaay rek. ah mais lu ma lu ma war maye. ah loolu moom waaw ma. benn anecdote rek. waaw joxal dama. ay ñun ñii sax ay xale lañ doon waaw. waaw loolu gisatuma ko. te loolu dafa neexoon. Ah, waxal mooy lan. Mm, dama daan sama gars yi dem àll mango. rëbbi. sàcc ginaaru jaamut benn année sama benn copain ndeysaan ñu dugg ay deux heures yooyu xam nga ñun deux heures yi daan sàcc ay ginaar. yow ñaata ginaar nga mën oh, bari na nag yàlla ko yàlla jégal mais bari na ma sama copain yi. loolu yëpp xale la. <laughs> bi jëlee ginaar gi bu duggee si tabax bi ñu dugg si tabax bi. waaw ut saako. bi ñu dawee ba koj ginaar gi ba jàpp ka rek far uh, borom ginaar gi doom ji dugg si tabax bi romb di dem. Eh. rek daw ñëw. Oh, oh, wax ak papaam papaam daw ñëw. bu mu ñëwee rek ne diw commencé lim saaga patati patata ñu daw ñun tamit dem si benn kër policier bu ñu demee foofu ñu dem mu ne def ñuy yóbbu police ñu dem ñu jiitu dem ci policier bi ñu ne ko ñu ne suñu maam moo ñu yónni ñu dugg si tabax bi ut mu ñëw kat doom ji ñëw ne dañuy sàcc ginaaram yaa ngi dégg léegi defee noonu bu tëj ñu si biir néeg mais jour boobu jour boobu lu <laughs> loolu taxul li. non bàyyi bàyyi ko non génnuñu si man da ngeen a dugal paa bi. non génnuñu si. da ngaa doon dugal loolu ba beneen yoon. moo far waaw c'est bon voilà émission bi noonu lay demee sëñ bi ñoo ngi lay nuyu. waaw lii ziar. tur bi naka la. Cheikh Cissé. Issa. Cheikh Cissé Cheikh. ah Cheikh Cissé. Cheikh Cissé. Cheikh Cissé ñoo ngi lay jaajëfal. yow yaa moom place bi. non moom moom man fee lay ah, jaay. waaw fee mooy jaay fi. yow lan ngay jaay. man ay kawas lay jaay daal. waaw ah, ay kawas ngay jaay. yaa ngi ciy gis sa bopp bu baax. ah waaw sant yàlla rek. dëgg moom sant yàlla rek moo fi nekk quoi mais moom a doxee dëgg loolu. waaw ah, na ñu sant yàlla bu baax. maanaam lan moo lan moo ci doxul. loolu moo si doxul. waaw dëkk bi instant ku nekk xam na ne doxul Sénégal moom moo loolu rek Sénégal moo fi nekk mais liggéey boo xam ne na normal dëgg-dëgg ah na ñu ko amul de mais mooy loolu ba ñuy takkale ba léegi yaa ngi de te dara takkagul. ah mais baax na. nañ si jàpp rek nekk si rek. xëy na bés moom dana ñëw mu waaw. mais ñëw benn benn rek sant yàlla ñu ñëw benn benn rek yaa ngi gën a peeru kawas ñaata cent franc. non du ma jaay peeru kawas cent franc rek deux cent laa jaay trois cent cinq cent. deux cent trois cent. kon kawas yi VIP nga yor. non du VIP sax loolu loolu du VIP. ah non loolu du VIP sax. kawas yi VIP nga yor jëlal ma kawas yaa yor. non du VIP de. kawas yi VIP la moom la yor. non du VIP. léegi dëkk bi yow lan ngay wax waa dëkk bi fi mu ne nii ak passion bi fi mu ne nii dëkk bi te dégg naa fi mu ne sàcc xale dafa xew. sàcc xale dafa xew ah waaw mais loolu moom tàmm nañ ko Sénégal moom loolu moom yàgg nañ koo dégg Sénégal élection sax bii waa ji ñëw moom noonu lay demee dañoo dégg ñu ne ay sàcc nañ fi xale rey nañ fale mooy loolu waaw ah, mais loolu nag moom dafa war a jeex quoi mooy loolu at loolu doxut waaw ah, man damaa jàpp ne loolu mayul kenn dara quoi ay sacrifier nit yooyu noonu bu dee élection la wala affaire de nguur nga bëgg loolu dama jàpp ne yàlla suñu borom moo non du question dañuy wax sax mais wax lu nekk fii lu xam rek la ñuy wax. yéen dal ma ñu koy def. maam rey nit mooy tax nga jot sa yoon man jàpp naa ne moom. Ah, ah. yàlla mooy joxe nguur quoi bu la ko war a jox dinañ la ko loolu la am yàlla ko war a loolu gars yi dañ ko war a bàyyi. loolu waxal la. ma gis xaw ma loolu dong la moom loolu moom wax eh, loolu daal lay amal lu si loolu daal nga amoon loo si yow. waaw fexe nag ñaanal yàlla suñu leader mu génn quoi incha allah. waaw sa leader bi mooy kan. ak Ousmane Sonko. déedéet kay mu sell. waaw yow wax naa ko wax bu baax. aywa ji loolu da ngeen wax. mais kon yow dégg ngeen ko nee ren. waaw Ousmane Sonko daal mooy suñu leader bi ngeen laam laamee nee nañ day day génn. non day génn sax incha allah. waaw day génn sax waaw noonu lay demee sax. déedéet kay waaw di ñaanal jomaay mu jël réew mi ak jàmm rek incha allah. waaw loolu lañ bëgg. waaw mooy loolu. ñoo ngi lay gërëm di la ziar. na liggéey bi gën a dox tax client yi gën a ñëw. amiin parce jaaraama. voilà mbokk yi mu doonoon seen émission Folie Time ngeen àndoon ceeb seen doomu ndey Ndiaye DG alliance du l'homme 213K tey duggoon nañu ci marché bi xool nan la maire yi seen i jafe-jafe waa marché bi yu ñuy dund ak ni mu koy liggéeyee ak ni mu ci gisee. déglu nañ leen ci ñoom ñëpp mu doonoon émission mbëpp mbégte kaf ree la comme ni leen koy waxee defee saa saa waaw di leen jox nag rendez-vous beneen yoon ak ci beneen endroit ak beneen émission muy Funny Time ak seen doomu Ndeye Ndiaye l'homme 213 di gërëm ñëpp bu baax a baax sama caméra woman bi parce que tey fan yii yëpp gars yi dañuy daw moom moo fi ne di ko gérer bu baax a baax a baax DG kii war ngaa wax ak moom bu baax Luka. kii war ngaa waag moom dolli waat ko dolli ko xam na jàmbaar la ndaanaan la temps yii yëpp moo koy gérer ànd ak Ndiaye loolu 213K waaw mooy eh, animateur bu ñaaw bi moo leen fi doon nekkal émission Full Time la woon noonu lay deme day gën a neex leen jox di daje eh, beneen yoon wasalaam jaa ngeen